oui Lalla Rasoul Bintu Rasoul naka nga def. maa ngi naka affaire yi. ça va sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah. Mhm. yaa en direct euh, biir VIP people ci émission wax sa xalaat. ñuy waxtaanee <laughs> waaw yaa ma gën a xam ñuy waxtaanee li nga xamante ne mhm. rek euh, moom la ñu am ci ay information yu yu yu leer muy choix bi nga xamante ni président Macky Sall porté na ko Euh, ci Amadou Ba c'est pas encore officiel nee na bu jógee Màkka officialiser Mbiri, mais ñun suñu ay sources yu lèr mo ñu xamal ni que euh, yombul won diggante Amadou Ba ak Boun Abdallah John, mais finalement Amadou Ba le euh, porte li nga xam mom moy choix ak lu ñeel évacuation bu Ousmane Sonko Ismaël Madior Fall indi na ci ay leeral que manipulation la won Ousmane il se porte bien ak tamit Juan Branco mi nga xamante ni finalement

ki nga xam ni Sénégal la ñëw pour exister am bës ak am tour ki nga xam fitam daf ko féete gannaaw koo xamante ni suy dugg ci si dugg ci réew day day camouflé wu di déguisé wu jigéen suy génn ci réew day camouflé wu di yër di sol yëre tenue pêcheur ko jarul yàq ay nelaw jarul yàq ay wax heureusement mhm. ba état bu Sénégal am na fulla ak fayda bañ ci defee liñ ci def ñu def ko ci ba yàlla teg ñu teg ko loxo Mm-hmm. ba war ko delloo ci réew ba delloo ko sax ci réew waruma wax waxuma ni war ko delloo ci réew ba delloo ko ci réew mm-hmm. Mm-hmm. kooku moom du waa ñu waa ñu bëri ñu bëri nag nee nañu gars yi pression bi tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi ko mu dem pression bi amul amul benn pression bu ci am amul benn pression bu ci am dans la mesure où l'état du Sénégal est un état indépendant et responsable ba tax na ni lépp luñ ci war a def ñu def ko xam nga Juan Branco moom Sénégal la le la ñëw ñun soxlawuñu ko suñu réew dañ koo déporté mu génne ñu génn Sénégal donc su ko neexee nag après dinañ ñi ngi xaar ñi ngi taaxirlu parce que xam nañ ni so àggee dina def conférence de presse di am lu muy wax mais après on lui apportera la réponse nécessaire bi nga xam ni moom moo ci war parce que wone na ni amul fit dafa doon laqatu nek en cabal mel ni bo boo ne dafa nekk ci biir paxam di wër paxam Mhm. mais malheureusement xam nga kaña moom lu mu lu mu yàgg ci biir suuf rek bés ngi ci bés yi dina génn bëccëg du génn mais guddi dina dina génn looloo dal wër gu am branco mhm. kaña la bu nekkoon ci biir suuf guddi la génn ñu teg ko loxo mhm. donc euh, loolu moo ci am donc du wax joo xamante ni dañ ci war a wax sax ba ci attardé wu mu ngi <laughs> Ousmane Sonko moom gars yi dañu yàgg nekk ci manipulation di nax askanu Sénégal di wax ni dafa nekk ci ay leneen ak leneen heureusement le ministre de la justice hmm. eh, wax na apporté na démenti yi ca ne yi ca war pour wane ni ndékki na lekk na hmm. donc nit ñi dañoo nekk ci mare manipulation rek dafa dem dañ ko yóbbu hôpital principal pour ñu defal ko ay soins yi nga xam ni war nañ ko ko ci defal comme tout prisonnier boo xamante ni hmm. da nga nekk ci situation yu mu nekk ñu yóbbu ko man Ousmane Sonko luñ ci mun wax rek mooy Ousmane Sonko moo newoon askanu Sénégal que Macky Sall mënu ko jàpp. mais tey wax jooju teggeeku na parce que Macky Sall jàpp ko muy nguuru état bu Sénégal teg na ko loxo ba féete ba caabi féete ko gannaaw kenn du ko ko ñaanal nag. parce que nit kenn du ko ñaanal kaso. jàmm lañ koy ñaanal saa su ne. mais am na foo xamante ne soo demee ba bàyyi politique di défier état. su boobaa état da lay day dal sa kaw rek. donc dañ koy ñaanal yàlla mu am jàmm ak salaam mais yéexoon que lu yéexaay bi état. jëloon ci moom mu a mu doon fëgg dënam tam parce que bañ ko condamné yàgg na <coughs> waxuñu ci. appel à condamnation bi condamnation bi ko jàppee bi ba condamnation am dara bokk ci. non loolu moom leer na bañuy. loolu moom na dañuy bañ kuy naagu xam nga xam nga xam nga kuy naagu di fëgg dënn. Mm-hmm. da ngaa xamul luy état. Mm-hmm. ku xam état du naagu bay fëgg dënn. Mm-hmm. te malheureusement moom dafa naagu woon ba fëgg dënnam. yaakaar ni état daf ragal hmm. wala état dafa am lu muy seet eh, déedéet état moom bu su bu paree def li muy def mhm. suy dal sa kaw du la du la du réfléchir état nag laa mhm. wax état waxuma nag ay mbirum homme politique de waxuma la mbirum politicien de état laa mhm. wax te état moom soo ko défier Ousmane Sonko dafa bàyyi politique dugg ci di xeex ak état sooy xeex état nag xeet xeex moom état moom c'est un monstre froid mhm. amul état d'âme li muy def da koy def donc euh, ñu koy ñaanal yàlla moom li nga xam ni mooy soins yi mu war a def mhm. mu defi ko rek te te wàññi jooy bi ak xiiroo beeg ñaayoo bi mhm. loolu laa koy digal voilà maintenant mbirum alliance pour la république xam nga soo demee bay toog naan ma une information officieuse c'est pas une information officielle mais for ngeen ci wéewi bay ne Amadou Ba lañ koy jox man awma problème ak nit awma problème ci mbirum personne man benn kilifa laa am te mi ngi tudd Macky président de Macky Sall ci président de Macky Sall boobu ma ci am moom lay déglu te moom lay top mhm. ki nga xam ni moom la tànn te jiital ko man Adama Fall moom lay àndal mhm. mais tant que le président Macky Sall waxul ni diw laa tànn du ay nit ñoo tax moo war mun a tax ma ne diw boobu la tànn mhm. ñi fi nekk samp seeni dënn te xam ni ñoom ñëpp mën nañ wuutu Macky Sall ci bopp réew mi bari nañ mhm. donc kum ci tànn rek man doyloo naa kooku parce que président ku ko doyloo rek man doyloo na ma ku mu mhm. doyloo rek man doyloo naa ma mais mais yow maintenant nag li ci ne li ci am solo waaw li ci am solo ñun au niveau du de la coalition Benno Bokk Yaakaar du nit ñun li ñuy liggéey mooy naka la ñuy def ba conserver appareil Mhm. parce que du nit moy gagné élection présidentielle li nit ñi xamul. Mhm. appareil moy gagné élection présidentielle. Mhm. te su nekké appareil bi dafa tasaaroo. suñu tànnoon le meilleur candidat au monde du gagner gagné élection de la élection présidentielle pour deux mille vingt quatre. waaw li am solo du nit ki. li am solo du nit ki. li am solo moy appareil bi nga xam moy accompagner ki nga xam mom le président di tan ñu soudé bokku nday bokk bay yëkëtendoo dóorandoo moo ëpp solo fuuf ki ñuy tànn mhm. su appareil bi tasaaroowee nañu xam ni duñu gagné élection yi en 2024 ak appar ak président ak candidat bu ñu mhm. donc li am solo pour man mhm. ak samay morom yu bari ñu nekk ci biir affaire ak coalition benno bokk yaakaar mooy nañu fexe ba appareil bi bokk ndey bokk baay ki ñuy tànn amul solo Les am solo mooy appareil bi bokk ndey bokk bàyyi ñu conserver le pouvoir mhm. parce que l'objectif c'est la conservation du pouvoir l'objectif c'est l'unité de la coalition Benno Bokk autour du président de la République Macky avec son candidat qu'il a choisi mhm, mhm. keneen ku la wax leneen lu dul waxu tey suñu tànnoon président de la République Macky Sall su yàlla defoon tey mu nekk suñu candidat te appareil bi bokkul ndey bokk bàyyi du ñu mais foofu nag laa laa doon question parce que appareil bi bokkul ndey ak bàyyi boobu loolu c'est important ndaxte nag gis nañ euh, ñu bëri ñu ngi naan euh, bu fekkee euh, président Macky Sall maanaam tànnu leen ñoom dañuy demal seen bopp est-ce que tey loolu mënul indi maanaam problème ci li nga xamante ni moom mooy APR parce que tam mbooloo mooy doole quand li am importance du candidat bi li am importance moy appareil bi nit ñi dañu wara parce que l'objectif c'est la conservation du pouvoir ce n'est pas encore la gestion du pouvoir parce que bala ngay xalat la gestion du pouvoir dañu conserver pouvoir ba paré dëgg la suñu conserver le pouvoir bi duñu mëna la wax ci waxi gestion du pouvoir ni wax yëpp naan suñu tànnul diw suñu suñu ma suñu tànnul diw te tànnuñu ma dañuy dem ñooñu waxi gestion du pouvoir dañuy wax waxuñu waxi conservation du pouvoir. Mm. te li président bëgg le président de la Macky Sall li mu bëgg mooy ñu maintenir appareil bi pour conserver le pouvoir suñu conserver ba le pouvoir ba pare. ñu mm. doog a wax si ci ce qu'on appelle la gestion du pouvoir. Mm. parce que nee naa la. Mm-hmm. appareil mooy conserver pouvoir di gagner élection mais ay nit ñooy gérer le pouvoir. Mm-hmm. donc su nit ñi bokkee ndey bokk bàyyi àndandoo yëkkateendoo dóorandoo ñooñu ñooy gagné unité mbooloo mooy doole te unité mooy gagné élection. dëgg la dëgg la. Mm-hmm. ak ku ñu mënti tànn ànd nag parce que man nekkuma ci ay Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo bu Abdoulaye Dione newuma ci loolu man ci li ma ne mooy nañu fexe ba conserver appareil bi pour mun a conserver le pouvoir parce que nag appareil bi su tasaaroowee. Mhm. soo jëloon candidaa bi gën ci candidat yi duñu gañe dëgg la dégg naa dëgg mhm. kon nag candidat bi amul solo ki am solo mooy mhm. appareil bi appareil bi bokk ndey bokk bàyyi àndandoo nag te ci biir appareil bi la conservation de l' ñu l'unité de l' appareil nañ ci boole militants yi nekk ci base yoon militants yi parce que militants yi ci c'est important parce que militants yi suñu àndul ak appareil bi suñu tasaarawee musiba am parce que tey xam nga luy dangereux eh, bint rasul mooy mhm. ku nekk ci militant yi da nga am sa candidat dëgg la suñu tànnu sa candidat militant yooyu mer nañ fippu loolu ñooñu mën nañu futtu fupp ñeneen ñi nga ki nga xam ne mooy candidat bi bu ñooñu dem looloo tax muy danger ma la man amuma candidat sama candidat mooy candidat bi nga xam ni moom la mari président de la république Macky Sall loolu moy taxawaay bi parce que président de la République Macky Sall mooy suñu kilifa si aussi li muy wone mooy ñi fi nekk di waxte bëgg samp seen dënd liggéeyu ñu woon pour alliance pour la république seen bopp lañ doon liggéeyal hmm. parce que suñu liggéeyuloon alliance pour la république militant yëpp militant Macky Sall la doon du ñu militant kenn moo nañu fonk appareil bi nga xam ni moom lañu yor hmm. Benno Bokk Yaakaar appareil appareil la boo xamante ne musul ñàkk élection ci Sénégal de 2012 à 2000 à 2023 22 23 bi ñu toll Benno Bokk Yaakaar musul ñàkk élection en termes de suffrage exprimé mm-hmm. Voilà m'a exprimé donc appareil boobu ñu yor te musul ñàkk élection mm-hmm. nga xam ni képp koo xamante ni samp nga sa ndënd ne candidat nga yaa ngi ci biir appareil bi ngalla nañu fexe bu appareil boobu tas parce que bus bu tasee ñu ñàkk pouvoir bi c'est important bés bu tasee mhm. ñu ñàkk pouvoir bi te suñu ñàkkee pouvoir bi duñu honorer le président de la république Macky Sall parce que président de la république Macky Sall dañ ko war a siggil mhm. gannaaw ba ñu siggilee ñun ñi ànd ak moom mhm. siggil Sénégal ci biiru ci bitim réew ak ci kanamu Afrique ñun ñi ànd ak moom dañ ko war a honorer ko naka lañ koy honorer mooy fexe ba élection 2024 yi coalition Benno Bokk yakar jël ko au premier tour mais loolu pour mu mën a ne du mbirum candidat déedéet pour mu meuna a moy appareil bi nga xamni moko yag may ndam di coalition Benno Bokk yakar appareil bobu mu rester intact ba kenn du ci genn dëgg la parce que su ci kenn ko appareil bi waa dooleem mm-hmm. wàññeeku na dëgg la moroom mooy donc li ëpp solo Moy man li ëpp solo pour man. Mhm. du candidat bi ñuy tànn li ëpp solo mooy appareil bi nañu bokk ndey bokk baay te parce que suñu bokkul ndey bokk baay lu mhm. candidat bi baax baax baax baax baax mhm. dañuy ñàkk élection yi. la am solo kàddu yi. moo man may wax ak loolu. parce que que que muy que muy Boun Abdallah Dionne que muy Amadou Ba que muy Abdoulaye Daouda Diallo que muy yow Bintou Rasoul que muy keneen. man amaluma solo. Mhm. lima amal solo mooy sama combat mooy la conservation de l'appareil de la coalition no Bokk Yaakaar tous ensemble en commun derrière le président de la République Macky Sall avec son candidat pour la victoire au soir du 25 février 2024 loolu ma ñor leneen ñoru ma am na solo ah, parce que su tan non yow mhm. su la tànnoon yow mhm. te appareil bi andul ànduñu bintu rasul doo gañe déedéet ku ma mënti tànn te appareil bi ànduñu kooku du gagner kon amul solo li solo le combat qu'il faut mener c'est la conservation de l'appareil de la coalition Benno Bokk avec l'ensemble des maires des députés des élus locaux des responsables et des militants de l'Alliance pour la rue mhm, mhm. et de la coalition Benno Bokk Yaakaar suñ ko deful la la rasul fi laa la ko mhm. le 25 février février dañuy ñak élection fi fii la ko waxee te suñu ñaké élection yi ñi doon xëccoo di xiiroo di ŋaayoo ku nekk di samp seen dënd ñoo ñooy pertant ah. mm-hmm. mais président de la République am na ndam ba pare mm-hmm. siggi na ba pare mm-hmm. tax na ñun sénégalais yi ñuy marché la tête haute parce que il est président de la Sénégal bu musul ñàkk élection xam nga ni Macky Sall ñàkk élection mu dalee politique ba tey musul ñàkk élection te ko ñàkk élection bu ko concerné moom directement musu koo ñàkk te du ko ñàkk mhm. yàlla su may suturaal na ko loolu mhm. il sera le premier président d'Afrique de ce pays là bi nga xam ni dina organiser élection présidentielle te nekk arbitre ba muy lu am solo te du ca bokk mhm. muy lu am solo donc loolu ñun ñi nga xam ne dañu war a ànd ak moom ba ñu sagalee ba pare dañ ko war a siggil siggil ko mooy ñu yëkkati ndamu vingt deux bi ñu yëkkati ko teg bor boobu la ñu amal président de la République Macky Sall te bor boobu nag bor boobu dañ ko war a fay allah budde dañu war a fay bor boobu président de la République Macky mooy jox ko ndamu élection présidentielle yi en deux mille vingt parce que nag lim ñu lebal rëy na lool. voilà loolu mooy kàddu yi. jërëjëf Alioune Fall kontaan naa bu baax ci participation yi kàddu yi te am na solo. jërëjëf euh, Bintou Rasoul ñu joxante rendez-vous beneen yoon. incha allah rabbi.